ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne jotaayu koor la ñu ko euh, boo xam ne 24actu koy proposé ñu ciy ànd ak moom di waxtaan ci lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu koor gi waaye itam ñu ciy dalal nga xam ne nag mooy euh, tàggkat yonent bi ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xaside Serigne Touba yi euh, gën ko yaatal bu baax a baax ndax xam ngeen ne weeru koor moom weer la woo xam ne lu ci bëri ci la amee alxuraan ci la wàcc laylatun xadar ci la am ak leneen ak leneen loolee répp rek nekk ay baax baax yoo xam ne ne 24 euh, actu fas yéene ci ànd ak gis ngeen jotaay bi nga xam ne boobu ba léegi ñi ngi ko doon amal ngeen ci doon ànd ak euh, soxna Assousila ak ki nga xam ne rek moo di euh, soxna Maam Fatou Kébé ci liggéey bu rafet bi tey jii nag ñu am gan gu mat gan ñu koy wax Serigne Ahmadou Ndiaye nekk jàngkatu xasaayit bu mag ngir ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gi nga xam ne moom lay yëngu ak yëngu-yëngoom loolee ci kanam tuuti lay doon incha allah rabbi suñu gan mi ngi ñi ngi jàkkaarloo ak moom muy Serigne Ahmadou Serigne Ahmadou Ndiaye akasa mu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci 24actu point com. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ah mbokki jullit mbokki taalibe yi Ahmadou Ndiaye moo leen di nuyu di leen ziyaare. di leen bëggee bu baax di am mbégte ci teew fii ci 24 actu mhm. ah di leen ziare di leen ñaanal jàmm ci koor gi te di ko sàkku ci yen mhm. ah, di am mbégte daal ci teewaay bi ci teewaay bi ah, lay sant bu baax di la gërëm ci wuyu si gi nga xam ne wuyu si nga ko waa 24 actu yi ngir ñu fas yéene ànd yow waaye nag euh, jotaay bi dañu ko baaxoo bépp jàngkat boo xam ne jaar na fi rek euh, bu ñu ñëwee euh, li ñu naan saxaar bu mm. nga daal di yëkkati dara rek incha allah balaa ñu dugg ci waxtaan يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران جيران وسلطان يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وسلطان فكل نافس كلا مئس وسيب ليلي فبدعائي يطيف البلايا وبرجائي يجد العطايا فبدعائي يطيف البلايا وبرجائي يجد العطايا فبدعائي يصرف البلايا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 Serigne Ahmadou Ndiaye am na solo vraiment li nga yëkkati am na solo macha allah euh, ñu tàmbali rek euh, waxtaan bi xam naa ne xam nit jafe na waaye kuñ bëggoon a xam tuuti rek ci Serigne Ahmadou lan nuy ñuy wax. waaw Serigne Ahmadou Ahmadou Ndiaye nag euh, yaakaar naa xam naa ne liñ ci wax sax du bëri ndax ab ab la rek ndongolu ndongolu bëgg Serigne Touba rek bëgg xasida yi ah, yëngu. Euh, yàlla dogal ñu am ci ak bëgg rek te te sëriñ bi rek tax. xam naa ni mm-hmm. euh, kàddu yi sax ndax mu mënewuñu baax ak tontu waaye. Mm-hmm. waaw ndongal Serigne Touba la daal waaw ndongal Serigne Touba la. moom moo jara doon mu nekk lu am solo waaye dama ne léegi Serigne Ahmadou Ndiaye akasa kon mën nañoo wax ne ci akasa nga tàmbalee am njàng di roy akasa wala. waaw ci akasa laa tàmbalee. Mm-hmm. di ko roy. yàlla dogal. ba nii sax génn na ci moom. génn ndax. waaw waaw génn na ci ba tey. Mhm, kañ nga tàmbali njàng kañ nga dugg ci njàng. waaw man 2004 laa tàmbali njàng mi. 2004 2004. Mhm. waaw ci lañ ko tàmbali. Mhm. Euh, yaakaar naa euh, doon aw sëriñ Ousmane Ousmane Fall. Euh, boobu ba tey ñu ngi ciy dox. 2004 ba. ba léegi ba léegi ñu ngi ci waaw ndax mën nañoo xam lan moo la ci dugal da ngaa judd nekk fekk famille boo xam ne ay jàngkat lañ wala yow da ñëw rek mbir yi neex la nga tàmbali ci. waaw ak bëgg rek. Hmm. ak bëgg rek moo ma ci dugal. Hmm. ndax yàlla dogal na euh, Touba moom ku fi dëkk xam ni hmm. am njàng moo fi am daanaka mun naa ni màggalu Mbàkke Xewar gële li tàmbalee ci sama njàng moom mun naa ni lu ci ëpp fa la ndax dem naa fa gis sama morom yoo xam ni dañuy yëkkati am njàng keroog ba ma fa jugee daal. yëf yi dugg na ma dugg goo xam ne ci laa ñëwee tàmbali ko. Hmm. ci jamono boobu maa ngi jàngee Noorul Maqaayid. Hmm, Noorul ah, ci laa ci laa bu may jàng di woyantu bu may dem ba. Hmm. sama gaa yi may àndal nag ni ma yow war nga mën a jël micro ku ci mel ni Malick Lay. Ah, ñu ngi koy sant moom it di ko ñaanal jàmm. te boobu ci akasa nga tàmbalee woon. waaw boobu moom jamono yi akasa nga doon kii. boobu sëñ bi fu ma déggee akasa damay daanu. akasa sàmm waaw ngir cofeel gu ma am ci moom. ba léegi. waaw moom moo ma ci dugal. voilà wasallalaahu bu may màggali fii ba dégg ko damay damay damay. damay damay damay tàggoog sama. voilà yow kañ nga yëg ne tàmbali nekk ab jàngkat nag avant ngay dem ci sax maanaam kañ nga yëg ne yow man mii daal léegi ab jàngkat laa. waaw bi ma demee ci moom rek. Hmm. parce que ci moom laa tàmbalee am jàng. Hmm. ci moom laa tàmbalee bi ma bi ma tàmbalee di di ko roy rek. Hmm. ah mu nit ñi safoo ko nag bëgg ko lool ah, waaw bëgg ko mbëggeel goo xam ni daanaka de am na ci ñoom ñoo ma ko gën a bëgg di ma ci soññ ci jamono boobu ci laa ko toppe ba yëf yi hmm. fi mu ne egsi na fu ne voilà mu nekk lu am solo ndax yaakaar naa ne ñu bëri ñu ngi lay suivre bu baax a baax a baax nga tàmbalee ci Akassa Samb waaye bokk ci ñi nga xam ne roykat yi nga xam ne dañ ko dañ cee fës lool eh, nga mosal ñu tuuti rek ci Akassa bi laataa ñuy dugg ci yeneen yi nga xam ne war nga ko yëkkati parce que comme ci nga tàmbalee nga mosal ñu li nga tàmbalee haru murid laa man kulli dara yakilaw yaa saabi man xalbi hawa uwa yamlaw ilay daan sax bi nabi xayra lawum surara ma faayantix bi matqiya madriw ahibati ya daarayni subu nafa bihim ilay li xayri kullu man laysa yabraw أدعى الله إلى كونه سيدا بهم وقد وقوا الكفار والكل جسو أسود على الأخداع مسابيو في دجا وكل زداء بخ ذي الكفر يجسو أسود متى يقصد لهم سوء تدري يبوب جبا أن يبكي ويمقى تدري أيا خادم المختار ayaa xaadimal muxtaaru ayaa xaadimal muxtaaru ayaa xaadimal muxtaaru laa tansa saboo fa man yansuum fa man yansuum fal matu madqul mu'taw abubakrin sadiqu su sidqi wal wafaa rafiqu nabiyul musaaxaran bu abu hafsil faaruq sarwa laa dirun bi iqtasa diinul مصطفى إس يسوسيو حديث من دابنو خفانا سلقيا لو النور ثم النار نخم المبايو أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله إني قديما ميبا لكم في الله ولا يقلو ميبا لكم في الله ولا يقلو voilà macha allah yaakaar naa ne euh, ku ko dégg rek sa xel dem ci ak sa euh, yan relation nga am ak euh, moom ak kañ nga tàmbalee dem ci moom mu xàmmee ne ah kii kat sëñ Ahmadou la ci tàmbal ci ñi koy roy ci la bokk. ah waaw loolu nag ci jamono. Hmm. bi bi ñu fi yëkkatee daayira soppe ak saa yi. Hmm. muy muy Touba. Hmm. bépp jànkat boo xam ne da fi nekk di roy ak saa. defe naa fii ci vingt 28. këram gi fekk nañ ko fi. Mm. ah may ko fi daayira boo xam ni. Mm, keroog ñun ñëpp waaw keroog ñun ñëpp dañoo yëkkati. Mm-hmm. waaw man ci jour boobu laa présenté wu nuyoog moom. Mm-hmm. mu nekk ku baax. Mm-hmm. nekk ku laabir. keroog ndeysaan kontaan na ci ñun ba ku ci nekk jël na xasida jox la man mi mu xaddimaat keroog la kontaan ci man ba jox ma ko addi Sëñ Tuubaa mu nekk am solo eh, gis nañ ni roy akasa est-ce que yomb na ak euh, ton bi nga koy defee ak njàng mi fi nga koy teg est-ce que yomb na roy akasa yombul hmm. ndax euh, bala nga xam ni yombul rek tey jii yow mi nga xam ni donte jàngkat nga sax waaye nga bëgg a dugg ci eerub sax mm. loolu jàngkat yi xam nañ ci dara. Mm. maanaam nag doomu aadama moom. Mm. li ma wax léegi lu loo jéem nag da koy mën. waaw kem sa yitte rek. waaye bu fekkee nit doxoo ci ba pare bëgg koo bëgg bëgg cee bëgg bëgg ñëw rek jaar ci jàll moom. Mm-hmm. danga xam ne ak sa eeram yombul. Mm-hmm. léegi yow ah. kañ nga kañ nga tàmbali génn nag euh, sa eeru bopp nga xam ne lii kat xëy na soriwul ak sa mais sëñ Ahmadou moo ko moom. waaw loolu yaakaar naa 2011. 2011 mm-hmm. jàpp 2012. ci laa tàmbali nag. Euh, ndax euh, nekkul sax lu ma fent. waaye nit boo dee defee mbir passif. ak bëgg. lu ne mën na la ci fekk. lu ne la ci fekk. parce que akasa. Hmm. Euh, moom yaakaar naa ku ko xam-xam ne tàmbali wutoon ci ci ci boppam am na fu mu jaar am na fu mu jaar waaw hmm. euh, ka mu jaar it ñàkkul fu mu jaar hmm. mbir yi noonu lay doxee noonu lay doxee voilà waaye yàlla dogal biñ ci demee ak passif ah doon ko ñaan ndax tolloon nañ benn jamono boo xam ne bëggoon nañoo génn air bi doon def lu mel ni génn kase benn maquette te mënuñu ko fu ñu changé ñu xool ni baaxul mais bi ñu demee ba mu jot dañ ko ñaan suñu borom it hmm. ndax yaakaar naa air yomb hmm. eh, ñi jànkat yi xam nañ ko hmm. te it surtout nag suñu lii ñu yor mu néew mu bëri waaye fi mu ne dem na ba am na am na am na am na am lim bu bëri boo xam ne mënuma leen a lim ñu ngi jël air bi di ko rey di ko rey waaw mu nekk lu am solo mu nekk loo xam ne eh, gis nañu ne say son ak say clip moom tasaaroo na lool ci àdduna bi kon ndax mënees naa wax ne Amadou génne na ay son waaw euh, def nañ ay son son son yi sax euh, mooy comme yi ngeen di dégg nii yu ci bëri nag baas yi mm-hmm. waaw yu ci bëri nag baas la. maanaam da koy jàng ci baas nit mu neex leen ñu jël ko di ko. partagé ñu jël ko di ko partagé ba loolu daj nag kàmp mm-hmm. àddina. Mm-hmm. bërki démb rek euh, mun nañ ci wax lu bëri. waaw dem démb rek waaye woo a ma état yi. di ma ci wax lu bëree bëree bëri. ci ci ci ni ma ni oto bi ma dugg. yow lañ fi teg. macha allah ca état yi te génne gu ma kase. te génne goo kase nekk lu am solo. nekk lu am solo moom it bi mu ko bi bi mu ci yemee xam naa du ko def mbégte parce que ñoo bokkoon nekk fii mu nekk sama sama xarit nekk sama ménageur Bada. Mhm. bi mu ci bi mu ci kiiyee mu mu mu kontaan ci lool. Mhm. ah mu mel ni kon tasaaroo na fépp. voilà Serigne Ahmad mhm. Serigne Ahmadou naka la gisee njàng mi léegi njàng mi ndax mi ngi dox ni mu waree. ah waaw ñu ngi sant yàlla de. ñu ngi sant yàlla ndax jànkat bu ndaw moom. ku ne xam na ni mbiram. faaw ay sant lay doon. ay sant lay waaye nag ñu ngi sant. Hmm. ah waaye ay programme moom mi ngi ñëw xanaa. waaw mu ngi ñëw hmm. mu ngi waaye nag. Hmm. ñu ngi sant daal <laughs> <laughs> a ngi sant daal ndax. ndax fi mu ne moo ñu yoral lépp nag moom. ci njàng mi liggéey bi ñu daan def lépp sëñ bi bàyyi leen ko. ah kon fi mu toll mën nañu wax Amadou amatul benn. amatuma benn activité bu dul jàng njàng mi rek ci ngay ci ngay. loolu moom yàlla laa koy seetal. njàng mi te di ko sant bu baax. yaa ngi Mbour njàng mi ngi fiy dox bu baax waaw mbuur mu ngi fay dox mm. ak dëkk yi ko wër mm. donte biir mbuur sax mm. na mu war a doxe dëgg dëgg doxewu ni waaye eh, xamoo mbuur dëkk la boo xam ni daanaka boo xoolee ay séeréer a fa nekk ay soose mbuur soose ku ne dégg na ko te it na fa soose yi bëree bañ leen di tudd noonu kaar kaar noonu la fa séeréer yi demee séeréer yi ci dëkk yi wër mbuur lu mel ni euh, Fissel Mbadaan ay ay ay ay ak euh, njagañaaw man côté yooyu dama fay jàng lu bari surtout nag njagañaaw njagañaaw waaw mu nekk lu am solo mm, surtout surtout njagañaaw ak dëkk yi wër mbuur mm-hmm. waaw waaw Serigne Ahmadou lan mooy sa relation sa diggante ak jàngkati xasaayid yi waaw ñëpp am na ak ñoom jàmm mm. waaw ñëpp mm. am na ak ñoom jàmm kan moo nekk sa waay koo xam ne sa xarit la waaw man nag Abdou jaw mm. ak Serigne Dame Diouf Moustapha Diop. ak sunu waa koñ bi man ñooy samay xarit. ñooy say waaw mm-hmm. bu bëggee dégg dëgg rek man ñoom ñoom ñooy samay xarit. Mm-hmm. ndax ñoom laay àndal fu may dem. Mm-hmm. ak Gora Gueye. sëñ Gora Gueye sëñ Gora. waaw. moom moom moom laa àndal maa koy nuyu. gis <laughs> muy ko baax euh, gis nañ aussi jànkat yi di taxawal ay bés est-ce que bokk nga ci jànkat yi nga xam ne dañuy taxawal ay bés. waaw taxawalaguma bis nag. guma bis nag. waaye da ngay dem ci bisi di ko di ko di ko toj maa ngi dem ci bisi gaa yi waaw ah. Ah, waaw li waral looloot mooy damay bañ a tàmbali loo xam ne rek du ma ko mën a egg damaa bëgg bu ma doxee ba ci kanam donte sax hmm. ku tàmbali sëñ bi ñëw jàppale la waaye. Euh, dama bëgg bëgg dama ndax gis naa ñoo xam ni. Hmm, dañ koy tàmbali dañuy tàmbali tey. waaw suba duñ def. nu aj ko soppe di laaj ak yëpp. Hmm. waaye ginnaaw man maa ngi mbuur ak Touba te hmm. toogaguma te fu ci nekk am naa fi mu ne nii bu ma doon def bis rek sama problème mooy dama koy def mbuur wala dama koy def Touba. ndax fu ci nekk rek. am ngay soppee mbuur. si macha allah am nga soppe Touba. moog Touba. chauffeuru taxi bëgg nañ la lool de lool de dama ko remarque la bu nga xam ne dañ koo def waaw waaw waaw rawatina nag ñi nekk euh, chauffeuru mbusoobe yi Touba waaw jafe na nga dugg ci chauffeuru taxi ba wàcc te doo dégg ñu teg son euh, Serigne Ahmadou lan moo waral loolu ndeysaan ñoom dañoo baax rek hmm. macha allah wax dëgg fa yàlla ñu dëkk-dëkk bu rafet hmm. ah ñu nekk ay borom baax hmm. wax dëgg fa yàlla seen cant gi ñu njëkk a def man maa leen ko jàngal waaw ñu ñu ñu ñu nekk ñu ñu nekk ñu ñu baax ah, boobu jamono Euh, euh, euh, ñoom ñoom ñëpp daal maa ngi leen di ziar parce que bu ma limee sax damay juum. <laughs> boo limee da ngay juum ah, bu ma limee damay juum. même suba. Hmm. fi ma war a jàngee Mbour ay chauffeur yi laa fay jàngal. Ah, kon ba léegi da ngay dëggal sa sa diggante. waaw ak chauffeur yi. Hmm. hôtel Lamantin bi nekk sali hmm. suba. ku mu bu suñ borom defee taw feex ku soxla Ahmadou daal ku fa ñëwul waaw suba ci heure bi suba bi maa nga fa mhm. waaw insha allahu rabbi ndax ñoom sofër si dañoo booloo di def seen i bernde ci koor gi ni mhm. ah, comme lii nga woote muy koor gi mhm. ah ku ci nekk rek comme ni nga ko yëgee ni la ko ñu bëri yëgee wax dëgg masha Allah waaw mhm. euh, ñoom it di woote di togg ay bernde mhm. di ko di ko di ko tasaare ci mhm. ci ci ci mboolem euh, ku fa jaar rek mbokki julli di mbokki taalib mu nekk lu am solo Serigne Ahmadou Ndiaye Akassa mooy sunu gan tey euh, bu ñu bëggoon a xam tamit sa diggante kilifa yi ndax kilifa yi ñi ngi jàpp ci li nga xam ne mooy liggéey bi ngeen di def bu ñu waxee kilifa yi mën nañu wax ñi yëngu ci politique ndax ñi ngi jàpp ci liggéey bi ngeen di def waaw man nag moom daanaka ñooñu moom. Hmm. wax dëgg fa yàlla sequma ca kenn lu may jàppale ci sama mbir daal ndax aw ma ci aw ma ci ak ñoom relation. Hmm. sequma ca kenn hmm. dara xaw ma ci kenn sax. parce que dañuy gis ñi nga xam ne dañuy yëngu ci genn fàll gi léeg-léeg gars yi jàppale leen ci ay kaset ñu génne wala nangam ak nangam moo tax. Euh, waaw man moom. li ma la wax léegi rek. parce que bis boobu nga laajoon léegi. daanaka nag ñoom moo politicien moom. Mm. mbiram ak mbiru gars yi daa mel ni naxante ne nii gars na ma yàlla baal sama classe gi bala ñoo dem ci politicien yi dañoo am bis. Mm. man nag xam naa peut-être li wokk gars yi moom ak man soxlaaguma kenn ci sama bis. mu mm. ñëw ci moo tax. amaguma ak ñoom relation te it ñoom am nañ fa la ku leen seeti wut duñ la seet si. voilà waaw moo nañ lay dégg nag xam ne yow mii ndaw nga parce que am na ñu ma ci bokkal koñ mbuur. ñu ñëw jàppale la mais loolu lépp amagul euh, li ci des euh, tax koo bëri lool yi nga xam dënmal na ko. waaw moom daal euh, projet yi du dara lu dul. Hmm. lii ñu nekk bëgg ko. Hmm. te ak bëgg am doole lool. Hmm. ñu ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan man cee jàpp. nga ñëw jàppale nu ay ndaw lañ. metti duñu ko tax a bàyyi moom lu mënul xew ci la nekk ba faatu. moom mu metteeg mu neex lañ ci yemale. lu mënul xew ñu ngi ci. kon képp koo xam ne. bëgg nga lu baax. ñu ngi lay ñaan boo amee mm-hmm. euh, euh, euh, dara loo ñu mën a jàppalee. Mm-hmm. ci ci saayir ak baatin mm-hmm. moo xam ñaan la. moo xam lu parce que kaata sax gaa yi neen ci sot la lu mu doon rek ñu ngi koy sàkku ci doomu aadama yi luñ ñu mën a jàppalee comme nii ngeen def yéen ñi yéen nii ngeen def nii wax dëgg fa yàlla séntu nañ ko ci ñëpp ndax ak jàppale la. ak jàppale la ndax ñun ay ndaw lañ. tey tey matériel bii ngeen teg ñun tey ji buñ ko bëggoon mm. amuñ amaluñ ko suñu bopp mm. kon yéen ñi nga xam ne yéen ñu koy defal ak ñu mel ni yéen mm. ak comme ni ma ko waxee yéen yéen ñuy jàppale waaw képp koo xam ne yaa ñuy seetaan lépp loo mën loo mën ci jàppale ab jànkat ñu ngi koy sàkku ci jànkat yu ndaw yëpp jànkat bu ndaw moom dafa laaj jàppale dafa laaj jàppale eh, ku soxla woon sëñ Ahmadou bëggoon mu jàng ci programme moom naka lay demee waaw ku ko soxla da ngay woote rek. Mm-hmm, bu téléphone rek. waaw bu ma mm-hmm. woowee. Mm-hmm. am na am na ménageur. am na bu fekkee ni koo xam ni maanaam sama digganteeg moom. Euh, ñagas na comme comme ni mm. du jar yooyu yëpp mm. waaye am nañ lépp loo xam ne maanaam mm. kaay la mu ngi ci suñu ginnaaw am nañ ménageur am nañ lépp dañuy laaj prix wala waaw dañuy laaj prix ah. moom waaw bu baax <laughs> waaw ndax ndax du ñëpp nag mm-hmm. ndax ndax léeg ni demee yow noo xam ne xëy na doo ko mën a fixer prix yooyu waaw ko mën a fixer le mm-hmm. ndax ménageur boobu sax mm-hmm. faaw ginnaaw nit ñi dañuy seetaan te am na ci ñoo xam xamuñu ko maanaam euh, dañ ko dañ ko am du baax. Mm. yàlla dafa dogal. Mm. Bada moom ma lay wax mu nekkoon état yi moom bi mu fi nekkee ndeysaan. moom moo nekkoon sama ménageur jëloon ko nga xam ne moom moo ko sax proposé ma ne ko mm. waaw. ba fi mu ne nii bi mu fi jógee ak léegi yëf yi daanaka lu ci bëri ci sama loxo bii la nekk. waaw ci sama loxo ci sama loxo bi la nekk nekk lu am ma ma bàyyi la nga tàggoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan xëy na sant gërëm ci ñi nga xam ne ñoo lay safoo balaa ñu tëj ak xasaayit ma bàyyi la nga tàggoo waaw di sant di sant ñëpp rek soppe yi surtout daayira soppe Ahmadou Ndiaye Touba Mbousso bi ak fu ñu mën a nekk Touba Mbour ah, mboolem fu soppe nekk rek ñu ngi lay ziar te xam ne maanaam jàppale googu ñoom ñoo ci jiitu ah, ñoo ci jiitu ku ci mel ni buñ tuddee max Mahfouz Faye tey jii nga xam ni. mu nekk ku baax sëñ Mahfouz Faye baax. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla lii nii da ci da ci am lu mu ci dox. bu baax a baax wallaay dafa baax lool Mahfouz ñu ngi lay mm-hmm. ñaanal yow mm-hmm. mu mel ni danga nga ko defal mboolem groupe soppe yi. ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfeex waaw ah, suñu borom defal leen tawfeex bu baax. voilà euh, jërëjëf euh, mu nekkoon Serigne Ahmadou Ndiaye Akassa tey moo nekkoon suñu gan ci jotaayu koor nekk jànkat bu mag boo xam ne ràññee nañ ko lool euh, ci Touba Mboussobé raaye tamit ci àdduna bi daanaka parce que fu nekk lañ koy dégloo rawatina tamit mbuur gi nga xam ne fa la nekk tey moo nekkoon suñu gan di sant bu baax di gërëm ki nga xam ne nag moo di max Mahfouz Faye moo comme ni mu ko waxee léegi moom itam nekk nit ku baax nekk tamit sab soppe ah vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sant Serigne Cheikhouna mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi sant Euh, sëñ bi ka moom Moussa Ka mi nga xam ne moom itam moo nekkoon ci caméra bi mi nga ne nag moom mooy monté jotaay bi ba mu jaar yoon ba ngeen mën ko seetaan mu rafet ñu ngi koy sant baax di ko gërëm kon sëñ Ahmadou ma bàyyi la rek nga tëjee ak xasaayit bu la neex wala fu la neex rek ñu tëjee ko naa jeytu rabbiya bi sahri ramadan sahril amani wal muna wa fayadan naa jeytu rabbiya بسهر رمضان سهر الأمان والمنى وفيضان ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى وفيضان ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى وفيضان amittuwoo amdan yasuuqu sarmada li xayrina iblisa sawqan ak mada kulabu jumlatal lasina afulloo li yatawajal wa rabbi muslu kulabu jumlatal lasina afulloo li yatawajal وربي المسلم إلى الذين سلموني قبل نعن مدرتي كأساك كبل عن انتفات مدرتي والبلوى بفضل منل لي قد الولوى لو سكوريا لو سكوريا إلى الجنات دار المنى wa alam nu mil wal minnaati lawa sukuriya ilal janaati daaril munaa wala lamru wal minnaati iskuru kulliya bil kitaabi bila maadatin wa ala hitaabi taxawlu naa li doy na gaayu baax yi waa juk digg wara muñ balaa te wara muñ nattu yi ak bekkoor yi te wara tub bon bon bono bon yi ak bakaar yi wa balaaw biim li Muusa ànd ak Sëriñ Tuuba ñun ñëpp tatagook buusa